أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام bukki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey noo ngi ci xisasul ambiya di ànd ak yéen ba tey ci yonent yàlla muusa tey noo ngi jël wa anzalna alaykumul manna wassalwa looloo ngi am ci jamono joo xam ne jamono ngëlëmte la banu israil yàlla subhaanahu wa taala nattu na leen wàcce ci ñoom ay xéewal yoo xam ne kenn mënu ko lim kenn mënu ko takk xéewal yooyu sunu borom subhanahu wa taala nettali nañu ko ci alquran mu ne toll nañ ci jafe-jafe yàlla wàcce ci ñoom aw niir wu leen tiim di leen keral ci tàngaay bi pour musal leen ci sunu borom xiif nañ yàlla wàcce leen lekk woowu tudd man na ak salwa mar nañu yàlla tàggat aw doj doj woo xam ne su ko Musaa dóori xeer wa doj woowu dana toj walla ubbeeku ba ay bunt yoo xam ne nangami kuréel yi àndoon ak banu Israil muy fukki kuréel ak ñaar benn bu nekk di nga mën a raa taxaw ci sa wàll naan loolu yëpp bokk na ci xéewal yi nga xam ne yàlla defal na ko banu israil nee na sewnde yuy daw di wàcc ci xeer boobu mu nekk ci ay kiimtaan yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala doole na ko dooleel na ko yonent yàlla Muusa nee na foofu la aaya bi wàcc borom bi tabaraka wa taala dinu ko nettali mu ne wa zallalna alaykum alxamaama wa anzalna alaykum almanna wassalwa kulu min altayibaati ma razaqnaakum wa ma zalamuna walakin kaanu anfusahum yazlimuun borom bi tabaraka wa taala ne man yàlla day maa tàggat aw niir niir boo xam ne da leen di musal ci tàngaayu jant ba ma defal leen ko mu mel ne ker naaj bi lu mu tàng tàng tàng tàng du yes ci yéen ndax niir bi mooy dox diggante jant bi ak yéen mu nekk xéewal goo xam ne yéen waa banu Israil amul lenn lu ngeen ma defal lu dul man yàlla man maa leen ko baaxee mu ne yemuma ci loolu tàggataal naa leen lekk goo xam ne yéen amuleen lenn lu ngeen ci def lu dul toog lekk muy wàcceel naa leen man ak salwa ci xeetu lekk boo xam ne coono amu ci benn pen dépasse defoo ko ci yàlla ne leen lekk leen min at-tayyibaat ci dagan yi nga xam ne maa razaqnaakum man yàlla maa leen ko wërsëgal waaye mbokk yi lii lépp yàlla defal banu Israil amul lu ñu fayee yàlla lu dul weddi loolu tax ay nit su leen yàlla defalee xéewal xéewal googu lay tax mu sax lay tax mu barkeel mooy sant ak jaamu mooy yàlla ak dëgër bopp day tax xéewal dem bëri na ku fi jàmbat bëri na ku fi jooy xéewal bu la yàlla mayoon bu dem yow yaa ko yóbbu ndax sant yàlla mooy tax alal barkeel mooy tax alal sax fi nga génne ci àq yi la yàlla wax mooy tax yëf yi barkeel borom bi tabaraka wa taala nag bu la defalee xéewal santoo ko li ciy tegu rek mooy xéewal gi dem yoonam moo tax borom bi ne tooñuñu ma wa ma zalamuna tooñuñu ma de ñu bari dañ yaakaar ne bu ñu defee bàkkaar yàlla lay tooñ da nga dégg ku ne man man damay tooñ sama borom rek déedéet tooñoo yàlla de sa bopp ngay tooñ ku def bàkkaar sa bopp nga ko def man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha dañu yëg ne ku def bàkkaar mbokk jullit yi bàkkaar boobu sa bopp nga ko teg tegoo ko yàlla ku def lu jaaduwut tooñoo yàlla de sa bopp nga tooñ in ahsantum ahsantum li anfusikum yàlla nee na bu ngeen rafetalee seen bopp ngeen rafetal bu ngeen defee lu bon tamit seen bopp ngeen ko def moo tax yàlla ne wama zalamuna tooñu ñu ma walakin kaanu anfusahum yazlimun waaye seen bopp lañ tooñ waaw mooy ku def lu bon sa bopp nga tooñ ndax lu bon li nga def dina la coûter cher dina la yàqal lu baree bari dina la indil ay jafe-jafe dina la tëjal ay bunt mu tax yàlla nee na tooñu ñu ma mu ne bokk na ci xéewal yi ma leen defaloon wa iz istasqa musa li qawmihi fa qul nadrib bi asaaka alxajara fanfajarat minhu isnata asharata aynan qad alima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min rizqi llah wala ta'thaw fi l ardi mufsidin daal nee na fàttaliku leen ba ngeen mare amu leen fenn fu ngeen naane ngeen sakkoo nandlu ci Muusa ngeen ñëw ci Muusa ne ko ñaanal nu yàlla mu may nu ndox nu naan ci jamono jooju la yàlla digal Muusa yatam woowu ngeen xam ne yat yu yàgg naa def ay kéemtaan yàlla nee na ko ma ne ko jëlal sa yat wi dóor ci doj wi bi mu ko dóoree ci xeer wi fan fajarat am na aaya bu ne fan bajasat fii fan fajarat mu daal di ball def ay pax ñaata isna isnata ashara fukki bët ak ñaar lu tax xeer wi daal di toj def fukki bën bën ak ñaar mooy kuréel yi àndool ak banu israil banu musa banu Israël kuréel ay kuréel lañ ay mbooloo mbooloo ñoom ñoo groupe woon ànd ak yent yàlla Moussa waaye kuréel yi ay xeeti xeet lañ su ma leen doon jox misaal Sénégal ay xeeti xeet ñoo ko composé am na ay pël am na ay séeréer am na ay joola am na ay noonu noonu xeet yooyu boo koy lim ba mu nekk fukk ak ñaar groupe yu mel noonu ñoo àndoon ak yonent yàlla Moussa léegi yàlla def ko fukki bunt ak ñaar xeet bu nekk daal di ran ci benn pax ci benn bunt di ci naan bu xante jiwul ak moroomam waa ñu ne tukulóor yi fi la ñuy naanee séeréer yi fi la ñuy naanee njaago yi fi la ñuy naanee joolaa yi fi la ñuy naanee olof yi fee la ñuy naanee ñoo ñëpp ku nekk la nga nekk rek nga daal di rang ci benn benn benn benn turu loolu yëpp yàlla subhanahu wa taala moo leen ko defal mu nekk xéewal yàlla ne leen nag kulu washrabu min rizqillah gis nga lekk leen naan leen waaye ci wërsëgu kan ah yàlla ku fi am dara rek yàlla moo la ko may waaye fii ngay gis ku ne diw moo niinal ceeb yi bu doon du diw ceeb bi du niin de mu ne loolu dégg naa ko ah xiiwal yi am fii ci kii moo tax bu doon du kii fii kenn defu fi dara kenn defu fi dara lépp yàllaa ko baaxee nit ñi indil leen ko yàlla bi mu naan banu Israël lekk leen waxu leen ci seen mbaaxu yonent waxu leen ci seen mën a jaamu waxu leen daf leen ne kulu wasrabu min rizqillah lekk leen naan leen waaye ci wërsëgu yàlla yàlla moo leen jox wërsëg wala taasaw fil ardi mufsid nga lawaay bu leen doxati ci kaw suuf di yàq gis nga moo tax yàlla bu leen defalee xéewal xéewal yooyu bu ngeen ko santul yàq bu yaru yàlla ñëwee day metti kon ay mbir la yoo xam ne borom bi nettali na ko wax nu ko ci alquran ci diggante Muusa ak ay nitam ñi nga xam ne ñoom ñooy banu Israil nga xam ne yàlla subhanahu wa taala defal na leen xéewal yu dul jeex yoo xam ne ñoom amul lenn bu weer dee facture bu ñuy fay di lekk te kenn du la fayee ku joxe woo dépasse lu dul la ngay toog rek ñu ne la kaay ndékki kaay añ kaay reer gaa yi neex na de te lekk bi lu ci doy waar mooy àjjana lay jógee allahu akbar ñëw tegu ngeen lekk ngeen pare mu delluwaat ah même lekk bi sax bu ñu ko doon toggee ci kaw suuf te yow defoo ci dara da ngay pare rek nga ñëw ñu ne la kaay lekk nga ñëw fekk ñu tegal la lépp nga ndékk ba suur daal di naan sa jus xëcc sa banaana wala sa pom lekk naan sa benn guttu kiran dem midi jot ñu defaan noonu reer jot ñu defaan noonu sëñ bi loolu dara la wala du dara ah dara la de beneen bi ñu mar naan yàlla indil leen ndox ñu naan te fay nu ñu tàng yàlla yónni niir wi na ñëw protéger leen bu leen tàngaay jant bi laal allahu akbar waaye xool leen lan la ñu faye yàlla yàlla mu ne li ma leen santoon ci loolu lépp nag xéewal yooyu ma leen defal mooy waabudullah allazi saxara lakum zalik jaamu leen yàlla mi nga xam ne moo leen tàggatal lii moo leen ko defaral bu leen yàq wala tuqaabilu an niam bil isyaan yàlla xéewal yi mu leen defal bu leen jàkkaarloog yàlla di ko mooy xam nga lii da nga koy gis sax léegi ci biir kër yi benn célibataire boo xam ne gorul yàttul tëdd di nelaw mooy métier waaw ngoon gu nekk xamul nu paa bi di def xamul kër gi nu ñuy def ba togg mbaxal mi day jékki-jékki mun ko ne kaay reer sax mun ne non ça va quoi xam naa mbaxar rek lañ toggati quoi waaye xam naa dëxin rek lañ toggati bon da ngay waaru quoi kër gii ne dëxin guddi dëxin bëccëg ndeysaan te dëxin boobu yoo xamoo nu mu dëxinoo dañoo yekk rek ne la kaay sa sa ñaar dërëm démb ci loolu da nga koy gis suñu kër yi non kër gi dañu sonal ci cere guddi quoi ñu ngi mel ñu ngi mel ne ay séeréer lañ cere guddi cere bëccëg loolu la moo dal banu Israël ñu topp di lekk ci man na ak sabaa ba mu neex leen benn bis rek ñu ne xam nga yàlla lan la yàlla nee naa ñu ne ko ñun lii xoolal bugguñu ko buggatuñu ko ay man na ak salwaa guddeeg bëccëg waaye jox ñu leneen yàlla ne leen atastabdiluuna allazi huwa adna billazi huwa xayr yàlla ne leen seen mbon yëpp nag teeral ngeen nag ñu wooyoon yàlla Moussa mu ñëw yàlla dinu ko nettali ne wa is qultum ya Moussa lan nasbira ala taamin wahid ñu woo Moussa Moussa ñëw amuñu lenn luñ koy doyee wala ñu ne ko santal nu sa boroom ndax de taxawu nanu jàppale nanu yombalal nanu dund gi noo ngi lekk noo ngi naan tàngaay rey nu wala ñu wax loolu waxuñu loolu de xam nga lu wax bu ñu woowee Moussa ba mu ñëw ñu ne ko xam nga lu xew mu ne ah ñu ne ko lan nasbir ala taamin waaye ñun mënatuñoo lekk benn plat mënatuñ ko de mënatuñ ko dañu bëgg mu am ay changement fad'u lana rabbak ñaanal ñu sa borom woo ko ne ko nun nee nanu yuxrij lana mimma tunbitul ard nanu génnee luy sax ci suuf bëggatuñu yàpp buy jóge asamaan bëggatuñu soos bëggatuñu ay ginaar ay picc yu ñu lakk déedéet dañu ne ñun ci suuf si lu fiy ñor lan bëgg gars yi ku bëgg luy ñor ci suuf nooy def gis nga problème ñëw na keroog la banu Israël torox keroog ban ne ne yàlla ah fadu lana rabbak yuxrij lana mimma tunbitul ard waaw Moussa dafa mel def leen ne waaw lu mel nan ñu ne min baqaliha wa qiithaiha wa fuumiha wa adasiha wa basaliha dañoo soxla yooyu di mel ne yuy lang quoi di lang yu mel ne ñebbe nga xam ne day lang ñu ne ah ñu ne ak yooyu nga xam ne day mel ne naajo quoi nga xam ne day rongande yooyu mel ne suppome ñu ne ak lan ñu ne ak yooyu nga xam ne day sax ci biir suuf si comme ñoom ñambi ñoom pataas ñu ne ak lan ñu ne yàlla ak ñoom carotte ak soble sax nag ñun yooyu lañ bëgg gaa yooyu ku ko bëgg ku bëgg yii ñu wax loolu nga bëgg ci loo dundee nooy def foog nga dagg ay hectare foog nga gori garab foog nga ruuj foog nga jëmbat foog nga roose foog nga taxaw di toppatoo ci balaa muy ñor ku la gis dina la yërëm ñoom nag ñoo ko proposé bu ne woon yàlla sax dëgg-dëgg dañu bëgg léegi sax lekk bi changé ko waaye na ceeb bu jën di jóge asamaan mais déedéet dañ ko ne génneel ñu luy sax ci suuf Moussa ne leen yàlla ne leen atastabdiluuna allazi huwa adna billazi huwa xayr da ngeen di fekk lu baax ngeen koy changé lu bon ah da ngeen di fekk loo xam ne lépp lu baax la amul lenn lu bon ngeen koy changé nan ngeen di fekkee nan ngeen di fekkee borom bi tabaraka wa taala dafa leen lu baax ngeen ne lu baax loolu nañ ko changé ñu indil leen leneen ndeysaan ba ñu waxee loolu yàlla ne leen fa inna lakum ma saaltum di ngeen am li ngeen bëgg nag di ngeen ko am waaye nan ngeen koy amee dafa ngeen bàyyi yàlla nee na wa duribat alayhimu zilla wal maskana wa baa'u bi gadabin min allah zalika bi annahum kaanu yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna annabiyina bi gayri lhaq zalika bima asaw wa kaanu yactaduun yàlla nee na keroog bañ ma waxee wax ji laa teg seen kaw torox tànge ak pauvreté woo tax lu ëpp da ngay fekk baykat nekk pauvre ndax mbay dafa métti mbay dafa laaj ay moyens soo amul moyen yooyu pour nga génn ci mbay moomu mbayu taqale lay doon du la jëriñ mooy comme mbayu Sénégal yi ngeen di gis taf taf yàlla nee na keroog laa teg seen kaw toroxtaange ak miskiin mooy pauvreté yàlla nee na ñu continuer wa baa'u bi ghadabin min Allah ñu continuer di nuur ci meru yàlla zalika bi annahum kaanu yakfur lan moo tax yàlla continuer leen mere mooy dañ doon weddi aaya yàlla yi yàlla ne nii la ñu ne du noonu yemuñ ci weddi aaya yàlla yi waaye di rey ay yonent wa yaqtuluna nabiyin jàpp yonent yi di leen rey ci loo xam ne àndul ak benn dëgg seeni bànneex lañ ko teg jàpp yonent yàlla yi rey leen yàlla na yemuñ ci loolu waaye zalika bi ma asaw ñu continue encore di mooy yàlla wa kaanu yaataduun ñu mënoon jalgati lañ ñu mënoon a xët déel yi leen yàlla teg lañ kon gis ngeen banu Israil ak yonent yàlla Muusa xéewal yi nga xam ne yàlla defal na ko banu Israil yépp banu Israil amul lenn lu nu delloo yàlla njukkal ci lu dul mooy ko ak dëgër bopp ak taxaw féttéerlu ci kanamam ba yàlla subhanahu wa taala sax doon leen indi lekk ñu taxaw bëccëg ne bëggatuñu lekk googu nañ ko changé waaw ñoom mënatuñoo muñ lan nasbir lañ wax lan nasbir ala taamin waaye ñun mënatuñoo muñ benn plat mënatuñ ko na am changement te changement bi aussi ñoom ñoo proposé ñoom lanu bëgg ñoom bu leen waxoon yàlla sax ñun dey benn plat bi mënatuñ cee sax yàlla dina leen ko changé foofu biir aljanna indil leen waaye ñoom ñoo proposé yàlla ñoom lan lañ bëgg ay reen ak ay pulloox loolu ngeen naan ñaam bi ak ay pataas ak ay supome ak ay soble ñoom karot ak ñoom ñebbe ñu ne ñoom loolu lañ bëgg daal ne leen dem leen dëkk bu tudd Égypte fa inna lakum ma saaltum la ngeen laaj la ngeen bëgg foofu la nekk ihbitu misran am na ñu ne foofu baat boobu di misr li muy tekki mooy benn espace benn suuf rek ci suuf si am na ñu ne Égypte la mën na nekk Égypte lu tax ndax xam ngeen ne Moussa ak Youssouf ñaar ñu paasante Égypte lañ ku nekk xam na ne Moussa égyptien la fa la juddoo ci Égypte bi mu juddoo la ko yaayam teg ci dex gi dex gi yóbbu ko kër Firawna waaye Moussa ba muy génn ak waa banu Israël di dem xëtt géej gi ci la yóbbaale encore banu Israël ak ñeneen lan moo leen delloowaat Yusuf moo leen delloosiwaat kon diggante boobu ñoom ñaar ñu paasante dëkk yi lañ su ko defee banu Israël féetarlu gi ñu féetarlu wan yàlla dëgër bopp yàlla ne leen loolu lu ngeen bëgg teeru Égypte la am dem leen foofu ngeen bàyyi ban demee lan lañ fa jëlee mooy toroxtaange gu méttee métti ndax yàlla loolu la wax wa duribat alayhimu zilla wal maskana yàlla nee na ma teg seen kaw coono goo xam ne pauvreté goo xam ne kenn musu ko musul tegu kenn ci kaw suuf yemuñ ci loolu waaye yàlla nee na ñu continuer ci sama mer ndax lan weddi aaya yàlla yi ak rey yonent yi loolu lañ fi nekkee woon loolu luñ ciy jàng mooy li ñu waxoon sànq mooy xéewal ku ko yàlla jox ba ci wér gu yaram ñu bare bare dañuy jàpp wér gu yaram sax du xéewal de soo nee xéewal sénégalais bi lu muy lu muy lu muy gëm lu muy jàpp ne loolu ngay wax xaalis alal fii koo fi ne xéewal rek waaye sa waay temps yaa ngi xéewlu de te naan lan la am man dama am dara bi may ñëw ci tataay laa dugg nga naan ma yaa ngi xéewlu ndeysaan pourtant mu ngi xéewlu de yow mi dugg tataa xoolal waa ji nga xam ne amul lu mu xëyee mun ta xëy ndax tey amul paas yaa ngi ko ku tane moo tax yonent bi nee na soo amee jafe-jafe da nga am problème mu ne génnal taxaw sa buntu kër balaa dix minutes di nga gis yow koo tane boo amee problème taxawal sa buntu kër dix minutes yow koo tane dina la romb koo tane ci am-am koo tane ci wér gu yaram koo tane ci côté yépp léegi mu romb la ah dangaa xëy di jooy loo ndékkee nga gis waa joo xam ne moom ndeysaan dafa génn dugg ci kër yi di ut di yalwaan xam nga yalwaan ko kooku mu ngi yalwaan waaye saa waay lu waay mën lu ma maay mën dëmbale yow egg ko foofu dangaa xëy di dox ak sa tànk léegi nga gis ku la romb di ràmm dangaa xëy xippi sa bëri di xulli léegi nga gis ku yor bant naan ni kocog kocog di dem benn borom xam-xam nee na dama nekk ci jumaay Médine ñuy julli rek benn waaye dend ak man amuli loxo mu ne ñu kàbbar gisuma waa ji loxo yi jóg ñu rukkoo gisuma loxo ñu sujjóot gisuma loxo mu ne waaw nee na fi mu nekk nag ci julli gi may julli sama xel bi di liggéey naan waaw kii nan lay sole yére kii dafa jàpp de pourtant ñëw fii kii nan la jàppee waa kii su demee duus naka lay setee mais kii naka lay lekkee hmm? gis naa saar bu mel noonu ñaari jigéen ci Facebook bi amuñu ay loxo kenn ki tànk yi lay defee lépp même buy kuus doom ji sax tànk yi la koy couché buy manipuler ordinateur tànk yi la koy manipuler comme loxo su bind baaraam yi ñooy kepp bi gi ñaari baaraam yu mag yi ñooy kepp bi gi di bind ndeysaan nga xam ne kon yàlla ay mbiram foo ko natt wees na ko góor gi nee na ñu sëlmal rek waa ji dem mu ne mu wër ko ci jàkka ji ba sonn gisuma ko ma am problème nag léegi kii fan laa koy gisaatee mu ne saa yu ma duggee ci jàkka ji saa yu ma ñëwee te di julli sama problème mooy balaa may julli naa wër lu ma mën a wër ci jàkka ji pour ma gis waa ji mu ne ma def ko ay fan gisuma waa ji mu ne benn bis rek ma séen ko muy julli si mu ne ma bàyyi ko ba mu taxaw ma ñëw taxaw ci etam mu pare rek ma ne ko balaa ngay dem dama la soxla mu pare mu ne ma toog ak moom ci jàkka ji di waxtaan ne ko waa yow foo dëkk mu ne ko Pakistan yow nii nga juddoo mu ne ko déedéet léegi ci accident la ma dab waaye ci jamono yooyu li tax yàlla teg ma lii mooy yàlla dafa namoon ci man ak mbaax moo tax mu teg ma lii mu ne ma parce que ku amoon la waaye nekk ci lu ma neex jullit bu saay saay laa woon mu ne gis nga lii bi mu dale bi mu ma dalee ba léegi mu ne diggante bi mu ma dalee léegi wàcc naa fi alxuraan ñaari yoon ba mu ma dalee léegi musatuma faat waxtu bis bu nekk damay julli ji ci jàkk mu ne ci loolu laa nekk sax ba ma ñëw tey umra ñëw jàkk yonent bi ziyaare si xabru rasul sallallahu alayhi wa sallam ñëw ziyaare si jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw umra nuyu si yonent bi kon nga gis ne léeg-léeg doomu aadama xéewal yi ko yàlla defal mu xeeb ko xeeb xeeb te yàlla daane li ma leen defal bu ngeen santee ma yokk ko wa in shakartum la zidanna lakum yàlla bu ngeen santee ma yokk waaye su la yàlla mayee santoo ko nag nga mel ne waa banu israil naan yàlla bëgguma koog lii lu tuuti lii nga may mayat lu tax nga may defal liyat ah bëgguma yooyu ab jullit du ko def mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne ci waa banu israil ba leen yàlla mayee xéewal yooyu daal ne leen dem leen am saar mu ne nekkul nekkul Égypte bi firawna nekk li anna Musa alayhi salatu wasalaam qaala lahum haadha allazi saaltumuhu laysa bi amri azizin manal li ngeen laaj nii nekkul ci mbiru buuru dëkk sàngam bal huwa kasir fi ay balad lu bari ci dëkk bu nekk la lu mën a nekk ci dëkk bu nekk la kon dëkk bu ngeen mën a dugg su ngeen bayalee seen bopp lii ngeen bëgg di ngeen ko fa fekk ñu tàmbali dugg dëkk yi di wàcc waaye ñu yëg ne def nañu erreur bu rëy rëy rëy rëy ñoom waa banu Israël erreur bi ci gën a njëkk mooy weddi xéewal yi leen yàlla defal képp ku weddi xéewalu yàlla yaru yàlla day dal sa kaw loolu tax mbokk jullit yi nga bokk ci pas-pas ab jullit su la yàlla mayee nga sant ko ndax sant mooy tax alal barkeel saa yoo bëggee li la yàlla may des ci say loxo jaamu ci yàlla génne ci li la yàlla wax ci wàllu jaamu yàlla waaye santal yàlla yàlla barkeel alal ji saxal ko ci yow su fekkee alal ji caay-caay nga ci def wala xéewal gi la yàlla defal caay-caay nga ci def même bu doon wér gu yaram gi la léegi yàlla tawat loola bu dee am am la léegi am am bi naaw léeg-léeg nga gis ci sunu dund bi nuy dund nga dégg kenn ay kii li mu amoon ay kii li mu amoon waaye comme santu ci yàlla jaamu ci yàlla da nga gis alal bi daal di naaw dafay mujj mel ni comme nit ñi te lu waral loolu rek mooy du leen lu dul ñàkk a xam ne alal ji yàllaa ko moom xéewal gi yàllaa ko moom yàllaa fi gis ñëpp romb leen jox la ki am alal da ngeen yaakaar ne dooleem moo ko may alal ak ndof weesuwul nga am alal dafa ne sa alal sa doole la ko may ak ndof weesuwul nga am alal dafa ne sa alal ji sa xam-xam moo la ko may démb benn mbokk mu ngi fii ci jàkka ji toog entrepreneur la ñu ne benn waay dafa am alal woo leen almadi di leen tabaxloo benn immeuble R plus 5 ans ba pare daan ne immeuble bi yëpp na am ñaari néeg man nekkuma fi di jur ay dooma ñaari néeg doy na ay doom yu bëri yow lu ma koy dee li si des yëpp defal ma ko ay saal immeuble bi ci kaw kaw kaw kaw kaw kaw kaw kaw terrasse ba fa la def piscine bi lépp moom ak ñaari doomam ak jawaram nee na soxlawul néeg yu bëri parce que soxlawul ay doom ñaari doom doy na ndax moom nekk fi di pacc pacc awa kooku mooy defe ne ne moom mbir mi ci loxoom la nekk quoi moom moo yor programme bi beneen bi mooy genre yu mel noonu ñu bon lañ ñu soxor lañ lu tax ñoom seen papa bu meloon noonu est-ce que moom dina juddu yow sa papa bu fekkoon ne bi mu amee doom rek mu ne doy na doy na parce que tey di nga ñëw waaye doomu aadama lu mu def def loolu wallahi yàlla ñi mu programme ci sa ndigg bii fa la ñuy jaar ñëw mënoo leen téye yàlla moo yor programme wu nit ñi kenn ku nekk ci ñun yàlla dafa am ñu mu dugal ñu mu dugal sa ndigg ñooñu yaa leen di jur fal force su la neexee su la naqaree sa jabar bu màggetoon sax dina am sa rakk ju jabaram dee wala sa mag ju jabaram dee ñu may la ko fal force nga dem fanaani fa am doom nga daan ah nda yaa ko nekk paa bi day am doom ba léegi yàlla la de du yow du yow du yow kon nit ñi nañu bàyyi xel yàlla ci alal yi leen yàlla may wallahi gars yi dañoo ñëw ci yonent bi ne ko yonent waaye ñun borom alal yi raw nañ ñu de ñu ne la waaw ñun borom alal yi ñun suñu jullee borom alal yi julli boo ñëwee première sàppe borom alal nga fekk fa borom alal soo wooree mu woor waaye ñun ak ñoom dañu yonent ne xam nga lu ngeen def bu ngeen jullee pare da ngeen def baaqiyaat saalihaat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ngeen def askar yooyu ay gars yi commencé borom alal yi daa dégg ndéegi commencé jullee pare rek commencé ñi amul dawaat ñu yonent gars yi jëli nañ affaire bi de ñu ngi koy def ñoo ne ne yàllaa leen baaxee nag dem leen yéen ngeen góorgóorlu yàllaa leen baaxee gis nga mu ngoog ndekkee kon xoolal borom alal rapidement dafa war a dugg aljanna rapidement loolu sax taxaw waaye xoolal tey alal nu mu nekkee gàllankoor ci doomu aadama pour mu jaamu yàlla xoolal xéewal yi ñu yàlla defal ñu bari ci ñun jàpp ne xéewal mooy alal nopp yi du xéewal bët yi du xéewal li ngay wax du xéewal li ngay dox du xéewal tëdd yeewu du xéewal yooyu moom pour moom du dara yàlla may loo dara ah kay mbokk yi bi nga tëddee yeewu ñaata nit ñoo yeewul xam nga ko ah bi nga tëddee yeewu wér këng ñaata ñoo ci guddi gi lañ leen yóbbu hôpital ci guddi gi lañ leen évacué ci guddi gi te bi ñuy tëdd dara dalu leen ah dañoo réer ba suur am na ñoo xam ne sax dañoo lekk yàpp naan butéel coca waaye hôpital lañ yeewoo jee yooyu sax tane na waaye xoolal ñi nga xam ne dañoo tëdd ci guddi gi lañ leen jël dugal ci morgue yi ndeysaan tey ci fajar sama portable dafa sonné ay 7 heures ma jël benn mbokk ne ma sama papa dafa wàññeeku démb ci guddi 10 heures lañ koy denc mu ngi ci jumaa ji gis nga wala tey jii laa wax tey ñaata nit ñoo yeewul voilà kon yooyu yëpp ay xeetu xéewal la yu yàlla tabaraka wa taala di wàcceel nit pour nit gis ko moo tax gis nga yonent su yeewoon lu muy wax day sant yàlla alhamdulillahi allazi radda alayya ruuhi ah alhamdulillahi allazi ahyaana baadama day sant yàlla su yeewoo day sant yàlla xam ne dëgg-dëgg yàlla defal na ko xéewal noonu la doomu aadama def di sant yàlla ci yàlla lim la baaxe ci yàlla lim la may mu néew mu bari sant ci yàlla jaamu ci yàlla te soo ko santee jaamu ko ci yàlla barkeel ko yàlla fulandil na la ko subhanahu wa taala parce que moo ko wax yàlla ne bu ngeen ma santee ma yokk waaw ñun ñii sax rek nga xam ne ay doomu aadama lañ wallaahi soo fi amoon benn doom nga koy may mu lay gërëm nanga wala soxna sax ah da ngay sawar mu ne la indi nga jox nga yokk ndax ni nga gisee ni mu taxawee sa wet ak ni mu nangoo njekk gi nga xam ne yaa ngi koy defal suñ borom nag wees na foofu ak ñun kon banu Israil li ñu war a njëkk a jàng ci ñoom mooy dañuy sakk jëf ak ngeen sakk jëf mooy buñ leen mayee dañ naan baaxul wala ñu ne bëgguñu wala ñu ne façon beneen lañ bëgg wala wala wala wala wala dañuy sakk jëf moo tax yàlla mu ne bokk na ci li ma leen maree dañuy nuur ci mooy yàlla te ñoom xéwal yi leen yàlla defal kenn mënu ko wàññi tey yi ñu jàng nii rek laa leen wax waaye ñi ñëwoon tafsiru baqara xam na ne banu israel xéwal yi leen yàlla defal yàlla may ko benn xeet may ko benn xeet mais maa la saf ak kéeféer la ñu delloo yàlla ak dëgër bopp ak mbon dem nañ ba ne ñoom sax ñoom ñooy doomu yàlla yi yemuñ ci loolu ñu ne ñoom ñooy soppe yàlla waaye lan leen yàlla faye mooy mere leen def leen ñu gën a yées ci nit ñi ndax bis bu nekk sakk jëf bi ñuy sakk jëf kon loolu dars la leçon la ci ñun nga xam ne yàlla mu ngi nuy nettaliwaat histoire yooyu bu leen yaakaar ne alxuraan yàlla nettali gi muy nettali histoire yeneen nit yu yàqu yi pour ñu dégg ko nii rek déedéet rabtul maadi min alxaadir walxaadir lil mustaqbal ñu lay nettali histoire dañoo bëgg nga jël démb natt ko ci tey takk ko ci nga jël tey pour préparer ëllëg loolu lañ bëgg wala yàlla di la ko nettali di la nettali histoire balaa dara di am ci kaw suuf ba nettali la aadama ni ko yàlla bindee ba nettali aadama nu mu dundee ak ay doomam di la nettali yonent yi jaar-jaar yi buur yi fi nekkoon kàccoor yi ñu baax ñi pour lan pour nga jël démb takk ko ci tey tey nga mun cee préparer suba waaye ku jàpp ne histoire yàlla da koy wax nii rek muy dem yaa ngeen yàlla ne faqsusil qasasa laallahum yatafakkaruun nettali leen mbir yi ndax ñu xalaat mbir yi nañ leen ko nettali ndax ñu xalaat waaw kon loolu mooy sunu darsu tey mbokk yi ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu